ko neexale fonctionnaire international adduna yëpp ñu am information bi première chose deuxième chose bu fekkente ne gestion des affaires de l'État àndut ak képp ku ñu jox alalu réew mi amuñu sañ-sañ amuñu droit laaj la alal jooju nan nga ko dépenser. Mhm. comme Karim Wade euh, comme ni ko Abdoulatif Coulibaly génnee ci téereem bi te kenn mënu ko weddi lu ëpp ñeenti téeméeri junniy milliards ak lu tegu. ñu teg ko ci loxoom te ba bésu tey mënut joxe ay preuve ne xaalis boobu nii la ko dépensé nii la ko dépensé te képp ku ànd ak président la république ci fa ci famille wala ci camp lu la neex nga def bu la neexee sax nga far ay bakkan mais ñiy reyaate ñu ngi fii donc bakkan moo ëpp doole alal donc dama la bëgg a wax ne. Euh, réew mi toll na foo xam ne boo fi wax mbiru transparence tant sur le plan politique économique sociale culturel alors boo ko waxee rek nit ñi dañ lay xàqataay waxuma riir sukap di mhm. ree di nëbbatu mhm. mais dañ lay reetaan ca kaw ne la loolu kenn xalaatul ne am na euh, Bamba juste pour dire c'est pour les téléspectateurs pour mhm. euh, euh, suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi nekk ci Twitter bi di envoyer ay laaj yu bare bari tamit ñi ngi leen di remercier parce que souvent c'est très global li ñuy wax ne am na kenn kuy tooñ sax nee na comme on est dans la gestion des deniers publics nee na ci su alternance lañ dégg milliard mu nekk unité bi <laughs> nee na ay millions la leen dégg mais léegi alternance moom ay milliards rek la ñuy dégg. waaw xam nga euh, bu fekkee ne loolu day wane ne koom-koomu réew mi ful nañ ko comme ni ñu def ci budget. réew mi. Mhm. nga xam ne multiplier nañ ko lu bari. mais est-ce que ñu ngi càmbar déglu ma rek million. Mhm. boo ko multiplier il faut que mu àgg ci milliard. te kuy liggéey nag loolu nga ñaan yàlla. di di di multiplier li nga yor. waaye kenn ñaanoon ñu jox la réew ci ay millions nga delloo ko ci dix mille francs bu ñu joxee réew ay million mhm. yow da nga ko war a àggale ay milliards. keneen kiy ñëw sa ginnaaw yóbbu ko peut-être des centaines ou des milliers de milliards. loolu mooy euh, réew muy jëm kanam. est-ce que mi ngi leer. léegi non waaw mais mais xaaral benn point. Mhm. dama bëgg a dellu si ci affaire u Ségura bi parce que quand même euh, yi ñëpp li fi xew xam nañ ko te dafa am yoo xam ne xaw ma nan la nit di am fitu di ko wax mbir bi bi mu amee ndax du banque mondiale moom moo ci def enquête. Mhm. ci mbir mi. ndax banque mondiale ba mu defee enquête ba waxut ne mbiru guerre amu ci. ah mais Ablaye Wade nee na jox na ko malet. waa déglul déglul. Ah, banque mondiale ci boppam moo def enquête ba. kon loolu nan la mën a nit mën a toog fii xanaa da foog ne sénégalais dañoo fàtte loolu moo tax nga mën a toog toogaat fii naan maletu lii daf koo gerak dafa def lii dafa def la ah non dañu wéj nit ñi parce que li fi xew itam ñëpp ko déggandoo te sénégalais yi loolu yëpp bu fekkee ne comme tey 19 mars la yow bilan alternance bi ngay laaj. ma dellu si waat ci li mu doon laaj Mbaye Ndiaye xam nga moom nee na dara amu fi ci. transparence mais balaa ngay laaj nga tontu ba pare tamit laaj. <laughs> yow mais dama bëgg man sama laaj. nga tontu ma ci après boo koy posé question ba jox ko bu tontu. waaw kon kon man li ma sama laaj dama la mais laaj kon. waaw ma fàttali la sama laaj. waaw ñu bari après mu dellu si nag ci li ma doon wax. amul benn euh, mm-hmm. a beaucoup de mm-hmm. ah, yoo xam ne jusqu'à présent mm-hmm. annoncé. Mm-hmm. amuñ ci lu leer. mën naa la limal annoncé. autoroute à péage 500 milliards annoncé Fesman ah. beaucoup de dossiers yoo xam ne c'est centaine foofu lañ tudd ay centaine de milliards mais sénégalais yi. mr aimerait bien que ñu wax ci loolu. bari ci sénégalais yi bëgg. Mm. lépp leer ci laa bokk te xam nga ko. te Mbaye mën na koo seede. kon ko na ah? ma ne loolu man ci laa bokk te Mbaye Ndiaye mii mën na koo seede loolu laa wax du mi ngi nii toog euh, mbiru annonce yi wax na ko sànq heureusement moom leeral na ne Mamadou sekk moo woo Karim Wade. yow yaa ngi dafa am solo dafa am solo dafa am solo <laughs> te tey Mamadou sekk mooy président assemblée nationale kon dëgg-dëgg coow loolu. ak lii mi ñu bëgg lënkalee ak mbiru annoncé ak yooyu. Mhm. dëgg-dëgg euh, ku nekk daal euh, am nga sa xel mën ngaa xayma. mbir mbir moomu daal. Mhm. mën ngaa xayma mbir moomu. li jëm ci mbiru transparence euh, il faut ñuy gam-gamle li am ginnaaw 2000 ak li amoon avant 2000 ndax dafa am yu bees yu fi ñëw lu bees nag il faut nga ne lii daa bees maanaam amu fi yoon commission nationale de lutte contre la corruption la concussion amu fi yoon. ku ko def alternance bee ko def loolu ci bilan alternance bi en matière de transparence ci la amee l'ancien régime loi de répression de l'enrichissement illicite lañ fi defoon te mosuñu ko appliqué benn yoon lañ ko appliqué euh, euh, daal di teg loi ba. ok commission nationale boobu. Mhm. amu fi woon alternance bi moo ko fi indi kuy def bilan alternance ci mbiru transparence waaye ngir yàlla tudd ci loolu. Mhm. ndax ndax ñoo ko def agence de régulation des marchés publics du ci alternance bi la ñëwee le nouveau code des marchés ku ko def du ci alternance bi la ñëwee coow ji ñuy coow yëpp naan fee dañoo détourné détourné wuñu ana lan moo koy indi lu dul ay rapport d'audit yi yiy jógee ci ARMP yi yiy jógee ci Cour des comptes ah mm-hmm. voilà kon bila alternance bi ci mbiru transparence mi ngi noonu defal ndànk nag li ñu war a def transparence li muy tekki mooy dañuy teg ay kuréel ak ay sart yoo xamante ne. ku jalgati mu feeñ ku jalgati ñu teg la yoon waaye nag transparence muy Sénégal muy Amérique muy benn réew ak àggul ci ba amul kenn kuy jalgati. mais teg ay kuréel te tamit kuréel yooyu. seen efficacité ça laisse à désirer. ça pose problème aussi dafa mel ne fi ñu toll dañ naan rek bu benn kaa amee rek. Mhm. même bu. apprenti car rapide bi jëlee wecc du jàmbur ñu ne kon y a pas transparence au Sénégal nañu moytu mhm. na nañu moytu transparence mooy ñu teg ay kuréel yu leer mhm. teg ay sart yu leer mhm. teg ay loi yu leer ku jàdd yoon ñu teg la ko mais Bamba yow mi nga xam ne li ci kër dégg naa gis naa tamit ne ay rapport yu bari génne nañ ko mais personne n'a été sanctionné mais mais mais déedéet boo ne personne n'a été sanctionné ah loolu loolu loolu dafay xaw a doy waar man man jàpp ne personne n'a été sanctionné. Hmm. parce que rapport yooy yëpp ils sont devant la justice. xanaa kay le problème jusqu'à présent non non defal ndànk rapport yu bari. Hmm. génn nañ ci ay communiqué yu leer nañ ñu ne président transmettre na ko à la justice. maintenant peut-être ba am na beneen problème peut-être nga may ma rek ma daaneele foofu. am na beneen problème mooy rapport yi bu demee devant la justice traitement bi nag yenn saa yi mu yeex mais traitement bu yeexee ci justice. c'est pas du du député ko def. du président ko def. mais war nañ ci wut pexe parce que bu ñu ko yóbboo ci juge itam bu demee fekk fa téeméeri dossier yu ko jiitu. bu dossier boobu ak yeneen téeméeri dossier ñëw fekk ko euh, donc li li li mhm. pexe mooy li président Ablaye Wade annoncé déjà ne moom lay def. maanaam am une juridiction spécialisée. Mhm. boo xamante ne genre rapport yooyu bu ñëwee ñu jox ko juge bi loolu donc mooy doon liggéeyam. Ah. foofa mbir mi dana mën a gaaw. alors benn question rek laa koy posé. parce que sànq ba léegi mooy posé question sànq ba yaa ma dogoon. mais fa ma jëmoon. waaw ci benn sa question. la bu gàtt nag mooy li muy wax nii ne Sénégal amul transparent amul dara. ban date la tàmbali. très bien. Euh, est-ce que de 2000 à 2008 day xamante ne yéen. ban date la leer la ba xam ñoom ñi ngi woon ci biir. Uh-huh. dañu ne jamono jooju yëpp. ñoom dañoo nekkoon ci yu lëndëm. dañ jalgati. mbay oui ou non. permettre aussi parce que y a des Sénégalais qui m'ont appelé pour poser certaines pour certaines pour certaines questions c'est bien on reçoit l'information donc permettre leen aussi ñu poser certaines questions allez-y Mbaye. dama koy poser rek benn question Sénégalais yi ñoo ma koy envoyé d'ailleurs. sama conscience loi yi nga wax ne am na ci réew mi pour la répression de l'enrichissement et de la concussion. dama ne xam nga moom moo ko fi wax. ne ne loi PS. benn loi sur l'enrichissement illicite rek lañu fi def. Mhm. te benn kenn lañ ci jugé. est-ce que moom mën na jox. Sénégal déglu rek xaaral mu continue s'il vous plaît. Uh-huh. le de loi yi nga fi wax. sur les marchés. non que les organes sur les marchés. Mhm. sur les contrôles le suivi et la la la la la répression. de l'enrichissement illicite su quelque forme que ce soit te tey am fi est-ce que mën nga jox Sénégalais yi un seul exemple. oui boo xamante ne bii loi yooyu fi nekk am na ku ñu répressionné première question. dégg de mu leeral ci Sénégal yi moom la ñuy xaar nee nañ. ndax am na benn sénégalais boo xam ne dafa am lu mu jalgati ñu loi tegu ci kawam. ba mu nekk un exemple un modèle comme ni mu ko fàttalikoo ci régime socialiste loolu laa koy laaj est-ce que am na deuxièmement loi sur la régulation régularisation des de des des des, des marchés publics euh, bi président de la république gàcce ngaalaama defe defee ba loolu yëpp taxaw lu tax mu jukki loi yi nga xam ne doomam Karim moom moo ko yore pour le compte de l'énergie au Sénégal lu tax moom kese la jukki donc man ñaari question yooyu laa bëgg nga leeral Sénégal maintenant bi nga ma wax da nga maa posé benn question ah, waaw d'accord bu la neexee nga tontu man je continue dama na ne da ma posé question kañ la ñu commencé mhm. di xam à partir de quel moment la Ablaye Wade di dévier par rapport ak li taxoon ñu ànd ak moom mooy bi mu commencé di di jaawatle di jaawatle l'équilibre des pouvoirs à travers ses exigences doomam doomam mhm. république amul doom amul ndey amul baay ay citoyen la am ba mu jaral ko ay compagnons historique comme ñun ñi mbay Ndiaye Macky Sall yow wóor na la ne Ablaye Wade àdduna yépp seede nañu ne 2000 ak 2007 man maa ko yóbbul résultat man maa nekkoon guddi ak bëccëg. non non non non ñoo ko accompagner ba yéen ñëpp ngeen ñëw. donc dama la bëgg a yëgal ne ñun ba ñuy ànd ak moom dañu àndoon ak moom ci njub ak dëgg et ci daaneel. waaw d'accord daan jaay doole. ak daaneel ay àndandooram ci lu dul dëgg du yoon. léegi la boobu la ñu commencé. léegi bàyyil ma tontu la taxaw di ko seetaan. ma jox àdduna yëpp seede ko nga continuer. ngeen wax ne jeex na. non mais donc. Euh, ma jox àll sa question. sur la demande sociale. waaw d'accord la charité de la. d'accord là oui oui oui ça ça c'est une question. ça c'est une question importante. Ah, la ah, même les autres hein? euh, oui oui mais. particulièrement bi non non dafa amal solo nit ñi parce que jataay boo toog. ñu ñu ñu ko kon am na solo trop mais ci li mbay ci ci li mbay doon wax sànq rek euh, ci mbiru transparence bi man dëgg-dëgg du toog fii di citer tur nit parce que quand bon mbiru loi la. Hmm. loi dafa am lu may ak lu maywut mais. Euh, li journaux yi sax ku koy lire gis nga ñi ñu sanctionné euh, diggante deux mille ak tey ci mbiru gestion financière kuy lire journal rek. xam nga ci lu bare bari. Euh, kon du ma fi cité benn turu nit. <laughs> deuxièmement li li mu wax nii naan xaw ma dama ko laaj lan lan moo kañ la Ablaye Wade bon. parce que ñoom ànd nañ lu yàgg ak Ablaye Wade campagnal nañ ko ak yooyu tey ñu ne daa bon kañ kañ la bon mu may wax mbiru doomam mais mbay xam nga. maa ngi lay fàttali ne mbiru doom ji bu ko Idrissa Seck yë yëkkatee yéen ñii yéen a doonoon avocat am te déclaration yi ngeen fi defoon déclaration yi bindoon nañ ko ci journal yi mi ngi fi ba tey. Mhm. kon kuy wax da ngay fàttaliku démb. question bi li ma ci jublu rek mooy fàttaliku démb dafa am solo soo bëggee ñu wóolu la da ngay fàttaliku démb loolu dafa am important ma ñëw nag léegi ci mbiru euh, ci ci mbiru dund gu seer gi loolu doon métit boo xamante ne euh, ñëpp ñëpp ko yëg moom fi ñu toll ci ci réew mi moom. ñëpp yëg nañ mbiru dund gu seer gi euh, may wax ne man bu ma gisee euh, un responsable politique surtout koo xamante ne dafa bëgg a yor réew mi ëllëg muy wax discours boo xamante ne dafa mel ne daal li muy wax mooy ne Ablaye wax dafa bon rek moo tax mu seeral ceeb bi boo gisee loolu damay tiit. parce kan moo ko def waaw waaw déglu rek maa ngi ñëw. man damay laajte kan moo ko def. man non non dañoo bari moo tax du ma cité tur waaye bu ma développé rek di xam fi ma jëm <laughs> bu ma koo xam ne dafa bëgg a yor réew mi xam ne boo déggee discours am dafa mel ne li muy wax mooy Abdoulaye Wade dafa bon dafa soxor moo tax mu seral ceeb bi. ko man bu ma faloo man bu ma faloo bu ñu defee ñaari fan rek danaa wàññi ceeb bi loolu mu ko déggee damay tiit damay tiit. pour yow mënuñu ko ñaan ñaan sama borom mu aar ñu. ci euh, euh, euh, nit ñu mel noonu. ma ma lay fàttali ne Abdoulaye Wade mbiru ceeb bi xeex yi mu ci xeex pour wàññi njëg li ñaari yoon xaw ma ñetti yoon toog na jël décision ñu génne ko mu ne wàññi naa njëgu ceeb bi. waaye toujours man mus naa ci def sax question orale ministre du commerce ma ne ko mais dama bëgg nga ñëw fii nga leeral ñu parce que toujours gouvernement bi danaan wàññi naa njëgu ceeb bi waaye ñee dem ci marché ba bu ñu demee njëgu njëkk lañ fay fekk. donc loolu mu nekk problème bu rëy gouvernement bi mën na jël décision waaye ni système bi tëddee tey xam nga démb il faut que moo wax démb socialiste yi dañu libéraliser man nag Bamba d'accord ma ci déedéet parce que moo tax ñu dàq leen ñoom déedéet waaw d'accord kon yéen man daanaka boo leen defee la même pratique aussi vous risquez de suivre la même chose question indi même pratique yi bu ma waxee rek ne bu nga gis ne indi wuñu même pratique yi hmm. waaye ñoom la ñu defoon dafa am ay conséquence ci li nga xamante ne moo xew tey il faut ñu koy fàttali ñu ngi wax mbiru ceeb bi fi ñu toll nii hmm. état du Sénégal du bay ceeb du indi ceeb ci réew mi du jaay ceeb mus ta demee noonu na amoon na jamono état bi moo doon indi ceeb bi état bi moo doon jaay ceeb bi état bi moo naan ceeb nangam lay jar loolu socialiste yi ñoo ko fi dindi woon loi yooyu ñu tegoon muy libéralisation dëgg la bi ko socialiste yi def dafa ànd ak mbir yuy dox ci àdduna bi hmm. muy libéralisation ñu ne léegi ay privé maanaam ay commerçant ñoom ñooy indi ceeb bi ay commerçant ñooy jaay ceeb bi te njëgu ceeb bi la loi de l'offre la demande dañuy dem ci marché ba seet nu muy demee kon loi yooyu fi nekkoon ba tey mu ngi fi moo moo waral bu gouvernement yi mën a taxaw ne man nee naa kilo ceeb nangam lay jar nga dem marché ba. mais léegi fekk fa muy jar leneen. Mbaye Mbaye Ndiaye mu mu réagir loolu tamit ma laaj la ku nekkoon na loi yooyu dafa bon. lu tax ba ñëwee 2000. Ah, am na leen loi yooyu teg ci loi yu bees ah, aussi. am a yokk. ko mayoon rek waaw ayca Mbaye réaction sur la demande sociale. non na da ngeen di wàññi. mais d'abord li tax ñuy wàññi euh, dama lay jox rek. ay indication très claire loo xam ne bu ñu nee wii Macky Sall bu soobee yàlla budget présidence de la république cent milliards la téeméeri milliards mooy budget président de la république ñun bu ñu ñëwee dañ koy wàññi de manière très significative très significative et deuxièmement dañuy soumettre le budget du président de la république et de l'assemblée nationale à des des audits pour xam xaalis ba ñu fay dépenser fan la jaar ak naka la yem mhm. deuxième niveau mbiru téléphone yi ñuy joxante seen biir gratuitement mu ngi coûter au Sénégalais trente milliards par an dañ koy supprimer immédiatement dañ koy supprimer troisièmement donc dama ko bëgg a dama bëgg a woon yi ne bu ñu waxee ne bu ñu ne wiiw président Macky Sall problème mu demande sociale par exemple la prise en charge de la santé publique des Sénégalais mm-hmm. le président Macky Sall dafay engagé wu dégager un fonds de plus de quatre-vingts milliards pour jël en charge dootoo gis sénégalais mu feebar dem ci hôpital mm-hmm. ne amul ku ko faj parce que li amul liggéey amul xaalis bu ko fajee donc donc dama la bëgg a yëg continuer mënoon naa continuer di la sitel des grappes yoo xamante ni foo ci tibb rek mën na régler l'ensemble des problèmes yi nga xam ne jusqu'ici kenn xalaatu xalaatutoon ne Sénégal mën na am or boo jëlee les deux mille trois cent milliards. Mmh. du Sénégal plus de mille huit cent milliards sont utilisés dans le fonctionnement de l'État boo jëlee agence yi nekk Sénégal tey. am na ci daanaka trois agences yoo xam ne seen budget annuel ça fait plus de trois cent milliards donc ñun dañuy tas agence yooyu mu de li ciy des as tuut donc dañuy am responsabilité boo xamante ne bii dafay leer ci botu Sénégalais yi toutes les autres agences ñu hmm. dugal leen dans les directions des ministères tout ceci pour dire que bés bu ñu nee oui président Macky Sall Mm-hmm. les jeunes les femmes le monde rural. Mm-hmm. bref éducation bi. Mm-hmm. ak santé kenn ku ci ne sénégalais bu ne fa nga nekk. da nga sentir ne. ndike Sénégal amoon na alal ju toll nii. ba ñu mën ko oui oui on va vous laisser mais. Ah, je suis sûr euh, que da am devoir de bilan. waaw may rek. nga wax Sénégal sa statut bële. foofu laa jëm. day coûter soixante milliards. foofu laa jëm sa fesman bi. waaw waaw dégg nga lépp li nga xam ne dépensé nga ko te sànq tontuwoo ci ay cas de de de fraudeur patenté yi ñu sanctionné nga ne doo tudd tur. te pourtant tudd mais tudd nga parti socialiste. nga xam ne am na ñu ca jàppoon mais yéen. est-ce que yow mën nga wane ne diw ak diw. ak diw jàpp nañ ko jeexal nga kay. ma ma wax ak téléspectateur laay wax ak. fi mu nekk nii euh, téléphone bi mën nañ ko tàmbalee di jël pour jël ay question mais damay wax ne suñu mbokku téléspectateurs yi bu ñu wootee doo ay appréciation wala yu question yu précise lañ bëgg pour les deux invités ñu tontu c'est très important. Yeah. alors euh, donc euh, au niveau de. des prix la région, des denrées on des denrées bon Mbaye Ndiaye wax na nee na bu Macky Sall falo immédiatement mu ñu wàññi njëg yi nan lañ koy wàññee jox na tontu xaw ma xam seetlu nga li mu wax. mais lay bi ñuy euh, génne ji ëllëg lay boobu la génne tey parce que nee na dañuy changer budget bi te président de la république mënta changer budget budget assemblée nationale moo koy defar. sur proposition. waaw defal ndànk rek budget. sur proposition. oh décision laa la wax damal kii dogal assemblée nationale mooy dogal. kon loo aj. mosuñ cee changer une virgule kon may ma rek may ma rek ma wax ngir yàlla. oui mais mosoo ci changé une. waaw may ma rek du man waaw may ma rek. donc da muy ñëwee may ma rek noonu lañ koy voté. waaw may ma rek may ma rek moo wax may ma rek la wax parce que li may wax dafa leer budget bu dee budget 2012. budget 2012 voté nañ ko ba pare. bu ñu bëggee soppi lu nekk ci budget 2012 il faut loi de finances rectificative kon moo wax immédiatement waaye baat ba mu ca teg toxal na immédiatement ba muy benn ñaareel ba. li muy wax nii bu fekkee ne wàññi budget présidence ak budget téléphone consommation téléphonique ak yooyu loolu la bëgg a wàññee njëgu ceeb bi mag koy fàttali ne bi moom bi candidat am nekkee premier ministre lii la opposition bi doon wax candidat am di leen tontu defoon na sax ay calcul ba démontrer ay chiffre à l'appui que li opposition bi di wax même bu ñu tëjoon assemblée nationale mënta euh, euh, mat. pour ñu wàññi njëgu dund gi. ci Sénégal defoon na calcul yi calcul yaa ngi fii ku dem fekk fa calcul yi. Mhm. te calcul yooyu moo nekkoon dëgg peut-être tey waxu situation rek la yi ñuy dégg nii waxu situation rek la. waaye calcul yooyu ñu defoon mooy dëgg. ma dellu si ci leneen ci ci ci loo xam ne c'est un problème de fond. Uh-huh. mooy mbiru budget présidence pour ñu mën nañ mën nañ commencer jël téléphone yi. Euh, parce que il nous reste pratiquement 15 minutes pour la fin de l'émission allez Euh, budget présidence dane dañuy jël budget présidence pour wàññi ceeb bi mais loolu boo ko defee euh, chantier yi xam ne APIX mi ngi koy doxal xa xaalis boo fa jëm xaalis boo fa jëm nekk ci budget présidence da ça veut dire que da nga leen di arrêté donc da ngay arrêté autoroute à péage bi recasement yi ñuy def ci waa waa Pikine yi ñuy doxal da koy da nga koy bàyyi. Hmm. travaux terrassement yi ñuy def actuellement boo demee Tivaouane Peulh loolu yëpp nga wax ne. da ngeen koy arrêté ndax boo dindee budget ba loolu loolu yëpp day taxaw wala waxoo loolu loolu itam laaj la boo xamante ne euh, euh, dama la koy laaj pour nga xalaataat. très bien am na ku nekk ci xam ne sax li nga wax seetlu woo mbay euh, am na ku nekk ci ligne bi allo. allo allo. oui allo sëñ bi na def. na def waay. maa ngi rafetlu seen waxtaan bi. jërëjëf. bon quelques questions rek am concernant denrées alimentaires yi. waaw. bon man li ma seetlu mooy euh, benn jaxase bi nga xam ne ni gouvernement bi da koy jaxase euh, commerçant yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, population bi. Hmm. bëgg ñu bàyyi seen xel ni commerçant yi ci population bi la ñu bokk. parce que suukar bi par exemple bi ñu koy yokk bi ko bi ñu koy yokk bu mujj bi dañoo arrêté importation bi te jamono boobu prix suukar bi àggoon na six cent franc wala cinq cent et quelque. Hmm. tey fi toll nii kilo baa ngi àgg sept cent franc. Uh-huh. léegi fi mu toll nii ñoom ñoo arrêté bloqué importation bi complètement bàyyi compagnie sucrière moom donc di jaay sucre bi. Mhm. yëkkati prix yi ça dire ñoom ak compagnie sucrière ñoo complot li nga xam ne mooy yokk bi. kon bu bi concurrence bi am prix sucre bi du àgg fi mu àgg. très bien léegi problème bu am ñu ne commerçant yee ko def léegi loolu dama bëgg ñu xam ne commerçant yi ay citoyen lañu ay sénégalais lañu dañoo am ay mbokk. Mhm. ñoom dañu leen war a respecté ci loolu. très bien jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ci leeral bi nga am solo xam naa kooku. commercant la wala alors réaction. waaw waaw kon moom. parce que il dit que en fait en réalité ñoom ñoo bloqué importation sucre bi. waaw ah, waaw waaw waaw d'accord donc man. Euh, maa ngi koy gërëm bu baax a baax ci li mu wax. Mm-hmm. dégg naa ko bu baax xam naa ne euh, c'est normal man li ma doon wax sànq bu mu ko déggee ne damay xalab commercant yi man damay jéem a décrire rek mbir yi nu mu demee. Mm-hmm. Euh, man mbiru ceeb bi laa doon wax sax moom boo ko dégloo mbiru suukar bi la wax. Mm-hmm. peut mbiru suukar bi sax peut-être am na dëgg mais encore une fois man wax ji li mu ci jublu woon mooy ne ne toog rek bu ma nekkee président dinaa wàññi lépp déedéet. mbir yi demewul noonu. léegi nag xalaat ne. Euh, concertation dafa war a am ci diggante gouvernement bi ak commerçant yi ndax ñëpp réew mi moo leen tax a jóg. Mhm. commerçant yi itam ni mu ko waxee ci réew mi la ñu bokk te méttit bu fi am itam seet ci seen i mbokk lay dal. Mhm. loolu yëpp dañ ko war a waxtaanee seet yan mesure la ñuy jël pour. dund gi liñ ci mën a wàññi ñu wàññi ko. mbay man foofu laa doon wax. réaction question yi ñuy posé yëpp yi nga posé ak yi citoyen posé moo di transparence est-ce que am na réellement. ci réew mi ni muy doxe ñu appliquer ko ci mbiru prix yi boo jëlee autoroute à bi mu wax sànq cent vingt milliards la benn entrepreneur sénégalais Baratal pour ne pas le nommer la xayma woon pour chantier boobu tey chantier baa ngi ci trois cent vingt milliards et plus. ku ko ku wax loolu. ci kan la information bi jógee ci journaux yi tey. ci baara baarataal dong nga ko wax waaye s'il vous plaît loolu c'est pas une preuve. dans cette dans cette poursuivre. c'est pas une preuve diffamation. loolu c'est pas une preuve dama ne bu dee nit wax na lu dul dégg. day day day politique day campagne waxam du preuve. dama bëgg.